yebaloon it ñu doyloo ko ndax comme moom moo ñu doy lu ko doy lu ne wax nañoo doy waaye nag mu jël jëmmam ju tedd jooju bëgg ñu ko baaxee bëgg ñu baaxee jëmmam ju tedd jooju bëgg ñu koo baaxee fii ci ndakaaru diiru ñetti fan mooy solos waxtaan wi nga xam ne bii bëgg nañ koo tënk ci ay kàddu yu néew wax leen nii dina fi ñëw ak waxtu mu fi ñëwee ak lenn ci programme bi nga xam ne bii moom lañu jàpp ni gën gaa néew mën naa am waaye nag lay programme ba dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñun dañu koy bàyyeek boppam ba pare bàyyi ko ak suñu bopp bu ko defee la nga xam ne nii mooy li ñuy jariñ mooy loolu mooy ba sa kilifa ak boppam ba ko tamit ak sa bopp ndax li ñu mënul woon a ñàkk mooy barkeelu ci jëmmam ju tedd ji bu ñu ko baaxee ba noppi bu ñu ko gisoon rekk sax seen ko walla mu ne am naa yéene ñëw ji te ñëwulit mu mel ni dinay war a doy mastamal la bu ñëwee ba egsi fi ñun kon di tëral programme ak a tebbi ak a wax ni fii lay aw fii lay jaar fii lay awe fii lay taxaw fii lay nekk loolu day mel ni boo koy xool ba di ko xool da dul tegginu te du suñu wàll waaye lim ma wax daal ni ma wax leen ko mooy fas yéene na ko ba mu koy wax sax ca biir weeru koor gi walla lu jiitu tuuti weeru koor gi la ko jiitu na mu ko waxee woon ma ne su ko nettali sax ndax diis na diis bu rëy rëy rëy wane rek ak dogoom dem na ci mbedd day xanaa waaye bu ma ko fekkee rek dinaa ñëw nga xam ni diisoon na lool te ñu fekkee woon jataay ba kon muy loo xam ni amul njëg ci ñun amul pay ak tawféex la rek tawféex ak sëriñ Tuubaa bu ñu sëriñ bi tawféexale ñun ñi nga xam ni nag sëriñ bi lañu féete yaakaar ko tawféex bu toll noonu mënee su ko fay xanaa di sant rek sëriñ bi ñu defal tawféex boobu te tawféex ga la ca jëkk mooy boole gi ñu booleeg sëriñ bi te jàppale ñu ca boole gi ba tey jii yi xew yépp mën a xew bu ko defee kon nag ñuy yeesal cant gi ci moom muy cant bu wér goo xam ni mel na ni liy bëgg a xew sax ëpp nañu waaye nag comme ñun ñoo fi ne te ñooy wuyoo sëriñ bi ñoo bëgg sëriñ bi ñoo yaakaar sëriñ bi moom foofu la toll ndaxte bëgg gu ñu bëgg sëriñ bi bëgg na ko bëgg gu ni toll wula gu ko ëpp ba pare wëlbatiku tamit bëgg ñoo bëggale sëriñ bi ba di jël dara ci jëmmam di ñu ko jox kon sant rek a ci war kon yàlla nañu ko yàlla feyal yàlla na ko yàlla fi bàyyi yàggal ko fi yàlla mi nga xam ne nu ko neex doxale yàlla na jëfandikoo ca coobareem ji ak sañ-sañam bàyyil ñu ko fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax moom day bu fi yàggee dina mel ni dina baax dina baax ci ñun ñii mu jabatoo mais dina baax tamit ci ñii nga xam ni ñoo nekk ak ñoom ci dawlo bii nga xam ne bii dawlo bi nga xam ne moo tudd Sénégal ba mu ëpp ko sax ba dem ci ñi yàlla jamonoonteel ak moom ci jamono ndaxte barabam bay de boo fa demee ñépp fay ñëw te ko fa ñëw ku ne indi woo fa soxla soxla sëriñ bi sa soxla sa bopp rek nga fay indi te yaakaar tamit ni boo ko fa indee yàlla mën na ko faj kon moom yaagam fi njariñ la ci réew mi njariñ la ci àddina bi kon yàlla na yàgg ci barket Sëriñ Tuuba woote bi nag looloo ko waral booba ba léegi it nag xam naa ni yéen a ngi dégg ci jumtukaay yu bari muy réseaux sociaux yeeg journaux yi ñépp di bind taskatu xabaar yi suñu xarit yi ñu jàkkaar lool ak ñeneen ak ñeneen ku nekk ngiy bind ba pare di di di tëral sax programme waaye loolu xër rek la ak yaakaar tamit nii noonu ñu ko waxe noonu lay deme li ci jëkk moom nga xam ni moo ñu ko waxal boppam mooy nee na dina ñëw le 27 mu tombe ak bésub ajjuma di bësu jumaa mu fas yéene ñëw jullee ko fii ak ñoom ci jàkka ji Masalikul Jinaan kon ñi jàpp ni loolu moo ñu ko wax te jàpp nañ ko bu wér te ñoo ngi koy waajal yéeneem nag foo ko takk weesu na ko nee na fii lay le 27. ci weer wi ñu nekk di mois de mais mu tombe ak bésub àjjuma bu neexee yàlla fii la koy jullee ak ñun ban waxtu lay ñëw nag fu muy awak fa muy jaar ak fu muy nekk nag loola dañ koy baax moom ak ña nga xam ni ñii ñoo ko gën a jege tey saytu lool te xam ni boo nekkee kilifa mu dem ba yenn at yi dab ko ñi ko bokk muy ñun ñoo ko war a gën a sakkanal ndax sakkanal ko mooy li nga xam ni mooy suñu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wareef ci jamono yi ñu toll ndax ñëw ci ñun sax jàpp nañ ni woon sax du ak sakkanal ba mu diis ci ñun waaye moo ni ci ci jëmmi boppam ni loolu daa bokk ci liggéey bi comme daa bokk ci liggéey bi nag te moom mas na maa wax ni ma dañ koy faral di wax na noppalu te nee na noppalu mooy bàyyil li nga doon def rekk def leneen te nee moom li muy def fas yéene ko bàyyi kon dafa jàpp ni kon ci liggéey bi la bokk bu doon doy nag mën nañoo jàpp ni doy na sëkk bu ne ajjuma dina fi ñëw julleeg ñun ci jumaa ji mu liggéeyal maamam moom mbokkam yu baax yi ko fi jiitu woon te bañ ko fi jiitoo yi ca teg xeer wu jëkk wa ca pakk bële nga xam ne boobu ñëwaguñu fii moom la sëriñ Saaliwu yebaloon Mbakke yàlla na yàlla yokk ngëneel ak leer ca moom rekk ma dem fa man ak bàyyi sëriñ Ngom mu ne ma dinaa yebal Cheikh Mamadou Mountakha mooy ñëw teg si xeer wi ma nag boo demee nañ ko yëgal bee ci tur moo ma wax ci gémmiñam sëñ Saliou jamono jooja nag ba nii mu ñëwee ubbi jumaa ji doon sëriñ Tuubaa mësul a génn ci liggéey bi moo doon jëwriñu liggéey ji la ko sëriñ bi defoon nag ca moom ba tey jii moom laa jox caabi gi ma ànd ak yéen jox ko caabi gi mooy wone ni liggéey bii moo ko tàmbali ba moo ko indi fii baaxe mu baaxe bu toll ni daaw jéeg ci 27 septembre mu ñëw fii ànd ak mbokkam yépp ak àdduna ak réew mépp ubbi jumaa ji ñu dund ko nag ñun ñëpp gis na mu meloon ak na mu deme nga xam ni day bés boo xam ni mën nañoo jàpp ni benn bés la rek ci suñu dund ñun ñu ñëpp ñu ko fekkee ndaxte muy bës boo xam ni bës bu ni mel waxuma ni musula am de waaye man de xaw ma ko fàttali ko ma ko te góoma it ni bés bu mel noonu dina amaat mu ñëw ànd ak mbokkam yépp ubbi jàkka ubbi jumaa ji ñun ñépp ñu gis na mu meloon ak na mu demee ci nim ma ko waxe sax daaw jéeg ci période li fi xewoon amoon ay yenn mbokku taalibe yu siiwaloon ni dañuy def anniversaire ubbi teg Masaalikul Jinaan def ko maanaam daal ak màggal wala ak cant xam naa ni nag na ko nit ña waxee ëpp ba kenn xamut na muy deme bi ma ciy wax ak moom sëñ bi wax ma lu lu doy ni ma yow sa togg bii nga xam ne bañ koo lekkee ba léegi réesagul <laughs> sa togg gi nga xam ni dañ ko jëfandikoo ba léegi but moom lu fi luñ fi taalaaleeti wala luñ fi taaleeti <laughs> ak li xew ci àddina bi ma ma wax ko ni ko nag xam naa ni ñi ko for ci ay waxtaan ñoo ko génne tasaaree ko waaye demewut noonu loolu nag bari na ci àddina muy faral di am mooy interprétation yi rek ñu sëriñ bi ñee nañu day def lii day def lële day def lële luñ ci tuddoon sax muy pose première pierre u bi pose première pierre u bi des ko fi defagum ndax loolu dafa laaj ay waajtaay ndax xam na ni am nañu assiette foncière boo xam ne bii ñoo ngi ci nekk di ko liggéey muy man ak Cheikh Mouhamadul Bachir ci ndigalu sëriñ bi nga xam ne daanaka noppi na te sama mbokku journaliste yi boo xawee xóotal bu ñuy génn di commanté ak di interpréter waaye dinaa leen réserver la primeur bés bu ñu ca bëggee egg dinaa leen wax naka lay demee incha allah ak fu muy demee ak naka lañ koy def ku ne xam na ni institut bi ñu fi bëgg a defar bu noppee dina méngoog barab bi ñu defar dina doon lu yéeme loo xam ni dina yokkati sàkk ak ndamul sëriñ bi ci tool bi nga xam ni muy toolub lislaam bi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi moo ko ko dénk te ñi ko fi wuutu mat ko sëkk nga xam ni bëccëg guddi ñoo ngi ci rek guddi nekk ci bëccëg muy liggéey bu rëy rëy boo xam ne bii daanaka dina ma dimension bi dina egg ni jàkk gi nga xam ni fii centre de rayonnement spirituel lay doon culturel et islamique waxuma bu deme ni bu nekk bu bu bu réew mi waaye maanaam bu nekk résion bi yëpp wala mu daal di nekk Afrique yëpp wala sous région bi yëpp nañu daan déggee ni nit laxasaayu na ji dem nangam jàngi wala dem karawaan wala mu dem mopti wala mu dem azar wala mu dem ci nag yooyu institut bu toll noonu lañu fiy def méngoog liggéey bu rëy ba nga xam ne bii moom la def Touba muy université Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul loola na nga xam ne liggéeyam bële ay fukki fukki milliards la ci def muy liggéey boo xam ne bii normalement beneen liggéey sax waratul woon a am ci wetam tànk liggéey boobu noppiwul waaye comme xel wi xelu jàmbaar la lu mu romb ci yoon wi rek daal di lonkaale ni acca nañ dem rek looloo ko yóbbee loolu lépp ndax day jàmbaar ndax dafa doon jàmbaar sëriñ bi bu fekkee ni bii dañu du ñu wax waxu wilaayatu dañ koy teg fee loolu mbiru sans la mbiru biir la lu nëbbu la li mu fi def yépp fit ak jom ak ngor ak bëgg lu baax ak wane ni tool bii fekku ci nawle moo ko may loolu ñi ko fi doon ni yépp nag wutu ko ci xel woowu la ne moo tax mu sumb fële ci Touba lee mu sumb muy liggéey boo xam ne rek doy na liggéey wëlbati ku bëgg a def institut fii ak yeneen liggéey yoo xam ne du noppalu loola nag ku ne xam na ni day laaj waajtaay waajtaay yu mag sëkk ñoo ngi ci plan yi ñoo ngi ci nangam boo leen ko gisee seen xol dina sedd guy lii nag day ab bisitu siyaar ngan la gu mu ganale waa ngan nga sax na mu demee mënees na leen cee wax dara ndaxte sag bi mu ñu sagal ak njabootuk sëriñ Touba gépp ak mbokkam yi nga xam ne ñoo mooma nekk ci tool bi muy lislaam ñëw fii am fi ayu bés la fi am gaawu la fi ñëw ci dibeer la fi ñëw ci suba ba ca dibeer ga ba ca altine ji mu doog a dellu Touba jullee ñun fii ajjuma ubbi jumaa ji jaadu woon na ñun ñii ndakaaru nga xam ne ñun ñii la yàlla baaxe ba euh, euh, néeg bu tedd bi ñu dajaloo ñun ñëpp bu ñuy dugg oto di dugg oto bu ñuy dox di dox bu ñuy raam di raam dem ba fa mu nekk Touba ni ko jërëjëf sant ko gërëm ko ci lii mu ñu defal nga xam ne mënuñu ko woon a ñàkk waaye ci yërmande ga rek li ma leen di wax encore ca moom mu xam ni jël jëmam ju tedd ji ñëw day gën a woyof ci ñun moo tax mu defal ñu ngam gi waaye ñun ñoo waroon a dem santi ndax ku la defal teraanga ju toll nii teraanga ji bu julli jotee yaay ubbi dugg ci biir julli li nga koy bës gis bës bu ne moom ma nga fa Tuubaa yow bës bu ne nga jàkkaarloo ak moom sa xol bi di sedd ngay sagu foo teew jaadu woon na bu ñuy raam sax raam ba fa moom ni ko sëriñ bi mu xam ni bu ñu nee waa Ndakaaru kat nañ leen sant Cheikh Mouhamadul taxaa boo sàgganoon liy dal ndakaaru ci tëbaski lu ko raw dina dal ndakaaru ndax kenn du fi des la yóbbu nag daal di bëgg a doon équation à plusieurs inconnues yéen jàngkat yi xam ne luy équation à plusieurs inconnues mu baaxee ñu loolu ni dinaa ñëw faf daaw la ko bëggoon waaye xam ngeen jàngoro ji amoon ci réew mi ak natt boobu ak lim ci taxawee ba sa di ñu ci defal yaakaar looloo taxoon de daaw lu bëggoon na ñëw ni fii laay waaje jóge fi dem Porokhane waaye ñu dem ba xam ni situation sanitaire réew mi aaju laaju laaju ko waaye ren mu jàpp ni dina ñëw kon dina ñëw le vingt sept incha allah bu neex yàlla fii tamit lay jullee jumaa bu jullee jumaa it fii lay des ak ñun yendoog ñun ba saa su ko soobee mu dem dali fee ca Colobane ca kërug sëñ Tubaa gi nga xam ni kërug sëriñ Tubaa la ko fi defal ku ne xamit na mu demee kër gi ak taxawaay bi mu am ci taxawaay ci kër ga ñépp xamit ni bi muy ñëw di ubbi jumaa ji fa la ndax sëñ tubaa kër sëñ tubaa rek la xam bu ko defee mu nekk feek ñun samedi nekk feek ñun dimanche lu mu ci bëgg nag ci diggante boobu bu ñëwee ba wax ñu ko ñu ànd ci ak moom ndax ñun amuñu ak bëgg amuñu ak bañ li bëgg rek lañ bëgg te bu fi romboon sax ni ñu nii rek doy na sa ëpp na bu ñëwee nag nu mu ko bëggee dinaa leen ko wax dinaa leen ci tegal seen bët ndax xam ngeen ni sëñ bi it li fi xewoon sëñ bee ngi ñëw Ndakaar doy na événement ba nga xam ni ñi nga xam ni ñoom lañ ci àndal ñi ci jiitu di boroom réew mi ak administration di ko ci yaakaar ci ndimbal te yaakaar bu wérit ni dinañu ci jàppale ndax ba ñu ko jëkkee wax sëriñ bi man mii la wax ni ma naa ko ko wax maa ko ko waxal sama bopp ci téléphone ci jotaayu sëriñ bi ak Cheikh Mouhamadul Bachir mu bég ci lool kon yëgal naa ko ko wax naa ko ministre de l'intérieur yëgal nañu ko ko xam na waxtu yi muy ñëwee li ci des nag moom it dañ koy bàyyeek boppam bàyyi ko tamit ak sëriñ bi ba nu mu ñu waxee ni noonu lañ koy bëggee di ko muy dérouler ci ak jàppaleem loolu it buñ ci eggee loolu ci war a mën a yàqal dinaa ko yaatal ba yéen ñépp ngeen xam ko te it nag muy loolu muy événement bi am na nag ci biir événement bi programme ni ñu ko defee woon ci ubbite gi nga xam ni fii ci Masaalikul naan ñun taalibe yi fi la nekk di dund suñu ngan di ganale suñu gan fee mu ne ak ñañ fay yebal ak ña fay nekk fii muy programme boo xam ne bii def nañu commité scientifique am na comité d'organisation boo xam ni suñu mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo ma liggéey bi ku ci ne am nga ci wàll di nga ci dugg bu ko defee mu nekk programme bu rëy buñ koy gaaral moom sëriñ bi wax ko lañu fay waxtaane diiru nekk gëm fii nekk mu xam ni napp bu ñuy nàmp ci moom la mu barkeelal ñu ko ba bu fi jógee am lu des fi ñun ñu koy dund di ko dund ba mu baaxaati ñu geneen ngan ñëw fi muy programme bu riche ay thèmes yoo xam ni dinañ ko ci traité di ci invité ay boroom xam-xam yu bari ci réew mi ak bitim réew ñu mën a waxtaanee li nga xam ni bi ay yittey yoon wi la di yitey diine ji di yitey àddina bi ak taxawaay biñ ci war a am ak fi jamono toll ak sëriñ bi it fi mu toll ci jamono ak taxawaay bi mu ci amee yooyu yëpp ay thèmes yoo loo xam ne dinañ ko développé ci biir waxtaan ànd ci ñëpp na jigéen ñeeg góor ñeeg ndaw ñeeg taalibi sëñ Tuuba ak tamit julliti yàlla yi nga xam ni ñoo bokk ci réew mi ak sax ñi dul jullit ndaxte réew mi daa am ñu ñu ko bokkal bërki démb bi ñuy ubbi jumaa ji fii ci église yi ñu dendal ak école yi nga xam ni ay église chrétienne lañu ak ay école yi nga xam ni confessionnelle chrétienne lañu dañoo ubbi seeni bopp bunt ubbi église yi ni taalibe yi ku bëgg a julli sax ñëwal julli ci biir labbe yi ubbi ñu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk ci yeneen i turux ñëw mooy ñi ñu bokkal réew mi keroog bi ñu jullee ba pare fii ngeen gis nit ñi ñëw def fi xadaratu juma te xamuñu ñooñu sax fu ñu jóge ku leen yebal nga xam ni ak bëgg ak wane ni sëriñ bi lépp la boole yilif lépp la boole yor lépp la boole liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa loolu moo wone ni kon sëriñ bi ñëpp ko bokk kon buy ñëw Dakar ganum ñépp la ganuk taalibe yi la ganuk mbokku jullit yi la ganu ñëpp la boo ko defee ñu yaatal rek yaatal dënn yi xam ni ñun ñii ku fi ñëw ku ne suñu gan la ñuy jàppale lañuy ganale boo ko defee ñu ànd ci ngan mi ba ngan mi jeex ñu gunge suñu gan tey ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko ngeneen ngan ñaan sa borom tamit kàttanal sëriñ bi sàmm ko dooleel ko wéral ko ñu ànd ak moom ci liggéeyub sëriñ Touba yi nga xam ne bii moo nekk ci bopp bi leneen li ci des nag organisation maanaam visit bi xam naa ni dinañu def chronogramme bi dinañ def tamit programme bi wax bés bu ne la cay xew ak lam cay xewe ak fañ koy defe ba ñetti fan yi mat bu ñetti fan yi matee nag xëy na dina am des travaux de conclusion ak i waxtaan yoo xam ne yi sëriñ bi dina ko jëmale ci réew mi jëmale ko ci jullit yi jëmale ko ci taalibe yi jëmale ko tamit muy recommandation boo xam ne bii ab recommandation la bu fekkee ni moo koy délivrer boppam ñu xam ni moo koy délivrer boppam bu fekkee ni bii day yebalee tamit ñu délivrer ko ñu xam ni kamu yebalit taxawaayu sëriñ bi la yem am na mu demee woon rek ca ubbite ga bi mu yebalee njabootam gépp yebal Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ni moo yor kàddoom nekkal ko ci digganteem ak taalibe yi lu mu ñu wax lu jóge ci sëriñ bi ñu doyloo ko jël ko fonk ko saytu ko dunde ko ngir suñu njariñ rekk moo ci nekk lii daal mooy li nga xam ne lii d'abord mooy ngan bi ak li nga xam ne lii moom lañu sëriñ bi waxoon jottali nañ leen ko li ci des nag muy suñu waxtaanu biir woo xam ne ñun ñii la ñoo xam ne dañuy am gan dama ko waxe ci njàlbeen ga rek gan gu mag gan goo xam ni gii ñoo waroon a dem fekki ko ci yërmandeem ak baaxam mu li ñu rafet raf e, e, e, teggal ñu loola tegoo lépp rek tegoon lépp rek malgré li ma wax ci at yi ci responsabilité ba ni may ñëwal sama bopp boo ko defee nag li ci des waxtaanu biir la mën ak yéen sama bopp tey ñaan yàlla mu sedd guy ñu ànd ko suñu mbokk yi taskatu xibaar yi di woo nag ñi nga xam ni ñoo bokk ak ñoom tool bi muy toolu lislaam bi jiital ci mbokkam yu baax yooyu di sëñ Babacar Sy Mansour di xalif général de tiijaan di ko ci woo di ko woo mbokkam mu baax moomu ni ko kat sa doomu baay jooju kat a ngi ñuy gane si bu ñu sañoon njaboot gépp ñëw niñ ko defee woon ci julli gi te mu yebaloon rakkam yu baax yi ñuy xalaat sëñ Papa Malick yàlla yàlla yokk nga ne la ak ña xam ni ñoom la fa fekk di ci woo waa kër suñu maam Cheikh Umar al Futihi Taal di ci woo Cheikh Mouhamadul Bachir Taal di ci woo sëriñ Madani Taal di njabootu suñu maam tamit Cheikh Umar di woo <clears throat> suñu mbokku ahlu Laayeen yi nga xam ne suñu mbokk mu baax moomu di Baye Abdoulaye bu yàggul la fi jóge ku ne xam na mu dëman na mu diggante woon na mu meloon digganteem ak Touba soqe ko ci gox bi ñoo ngi koy woo ak toute la communauté lébu di woo suñu mbokk yi nga xam ni mooy sang bi géey di woo le grand serigne de Gare les grands serignes de Dakar di tamit la communauté chrétienne bi nga xam ne bii ñoo nekk fii te monseigneur jiitu ko jiite ko di tamit ñi nga xam ni ñoo fi nekkal jamaa ibadu rahman ak association islamique yi di woo suñu mbokku xaadir yi di suñu mbokku ñaseen yi di leen woo di ñoom ñëpp bërki démb la fi xalifa léew na jóge di woo suñu mbokk maa ngi ñëw di woo mbokk yooyu yépp nga xam ni ñoo bokk tool bi di woo sama mbokk ya nekk alhamdulilahi waa kër maam Cheikh Allah Dramé communauté xaadar bi nga xam ni bërki démb di leen jaale seen suñu kilifa bu baax boobu fa jóge waaye di ñépp ndax Cheikh Ahmad Muhammadul Muntaxa wala yi li ñuy wax mooy ndawalu guddi la ñooñu may woo bu leen neexee sax ni waroo ñoo woo ndax ñoo ko bokk nga ñëw ñu cee yeey di wool képp koo xam ne daal bokk nañu lislaam bi ñoom lay woo am na ku ma wax léegi ni ma mbokk Baay Faal yi man leen Baay Faal loo ni maa ngi woo sama mbokk taalibe yi dañu ni murit dëgg bay Faal man mi Baay Faal kon ñoo jiit ñoo jiitu ci yow ci woote bi